ajo noonu la demee ah signature de contrat Clément Sour doomu PA bi ah noonu la demee nag ak Fatou Balla la promotrice Sidi Diamb gën a ngi noonu dañuy signé contrat yi ajo noonu la demee nag a ngi noonu di signé ah dafa leer ajo joxaat ko mu téye photo noonu la demee nag mu ngi noonu doomu Diamb gën bàyyi noonu signé na ba pare ñu jox Clément Sour doomu PA bi wala ñu jox euh, promotrice bàyyi noonu Fatou Balla mooma ah. a gars yi nañ ko ñaanal bu baax a baax moom réussite totale ci journée bi Clément Zoura gi noonu doomu PA bi noonu di signé contrat bi ñoo neen ci locaux yi 3SA aca sama gars yi nañ ko waaj combat espoir kele signé na mi ngi noonu xaatim nañ kayit yi fi ndool nii kon lii leer leer na <laughs> aju mbër mi yéen wóor yaa ngi noonu